maa ngi lay ziar bu baax a baax. da ngaa indaale première cadeau ñëw na kay mu ngi ci oto bi après bu ñu génnee rek ñu jaar kër ga ma jox ko ñu ma ko war a jox ñu takk sëy bi wenn yoon mu jeex. <laughs> naka waa Thiès. ñu ngi fa Fatma ñu lay nuyu bu baax a baax a baax. Euh, ñu gis ni euh, depuis sa combat ak Diène defoon nañ benn interview macha allah depuis loolu après nga voyagé voyage bi lan moo ko wund. waaw voyage bi du woon dara quoi parce que làmb moo toll foofu noonu soo bëree daanu xama am lu topp sa ginnaaw. yee nga xam li la manqué faaw nga génn dem liggéeyaat pour ñëw jël sa place ci làmb ji loolu moo tax ñu demoon liggéey mais instant nii ñi ngi sant yàlla ñëw nañ waaw. ñu gis dañu doon dégg à chaque fois ñu naan Modou Anta ne noo pareegu ma pareegu ma ci wàllu préparation bi fan nga toll instant bi moom Modou Anta dina pareegu. non instant moom sañatuma wax pare naa nag 15 bii nag pour combat 2 mois wala 1 mois ma jël bëre waaw. jékki pare préparation la da am foo nekkoon daa am loo def sa yaram wala da nga jàpp ne instant bi pare nga pour ñaar pour bëri. préparation bi nag soo ko déggee maanaam du préparation leen lu pare ci entraînement xam nga li ma expliqué parce que tamit man sañatuma def erreur ndax dëkk moo topp sama ginnaaw su ma jugee Thiès moom mooy jóg kon tey jii day jaaru su ma ñëwee su ma summeekoo yee ñu gis Modou Anta ban daan gis ndam nag yàlla moo ko yor mais dinañ defar suñu yaram ba nga xam ne ñu gis na liggéey nañ waaw loolu moo taxoon ay jamono bi ma promoteur yi doon seet mën leen paree gu ma woon mais ins bi nag pare naa pour bëre waay bëre am na ay combat dafa nekkoon sa kanam am na ay bëri yu ñu doon doon proposé dégg nañ ay affaire Zoss ak ay Ada Fass mais la fan nga toll foofu ci foofu noonu est-ce que boo daan day bëreeg boy yi wala day bëreeg ki nga xam tey ñoom la war comme ci kaw ci mel ay ñoom Moussa Ndoye ñooñu ñu naan ay boy maa ngi ñoom ñoo maase ci ay at dama leen a teel a bëre rek dama leen a njëkk teela teel bëre rek mais tey ku ci génne sa kaanaante boo ko taggul laa la wax de non maguma la <laughs> waaw. mais est-ce que pare nga tey pour bëre même Alioune Seye 2 tamit déggoon nañ Modou Anta Alioune Seye 2 mais tey yooyu noonu tey Modou Anta combat fight la soxla wala combat jànq wala. non man adversaire bu ne ñu ngi ma koy proposé su ma lu nooy ci ñun may proposé am na ci ñu nooy nepp dama leen di jël bëre ñoo ñoom daan mais yàlla xam na ne moom soxlawuma lu nooy lu xat laa bëgg. non waaw ah fii am na fi parce que am na fi ay mbër yu fi nekk wara a bëreeg seen i morom di ko lankal ay pas yoo xamante ne am nan ay 6 defet 5 defet te man waruma ñooñu man xale yu tàng jër laa bëgg. non si. non man yow Fatma moytootuma kenn gars yi may moytu maa ngi nii libre. pare na non <laughs> ay ama neex ko dox nañ ko fukki at ak juróom mën ta fexe ba taxaw ama neex moom xoolal foofu rek <laughs> xewul. ñi xew laay wër. sa combat pour tànn waaw non man pare naa pour bëre ñeneen sax ñu dul Ada Fass lu nooy daal tey bëgguma lu nooy. non lu woo kong te Ada daa nooy. non daa nooy kay. Moussa Ndoye. Moussa non Moussa Ndoye man soowuma ci Moussa Ndoye du ma waxaat ay wax ndax tapet la ñu ngi koy laaj fee mu naan du ma bëreeg Mourou man bu bëre bu rëyul man soxlawuma bëreeg moom. ñoo nekkandoon naar ga gis na bu baax doful. ñoo ko nekkandoo woon gars yi defuñu lu nooy la ñuy wër te man wëruma lu nooy Moussa lu nooy lay wër damaa liggéey ba oos gis na samay vidéo deful ci na jàpp ko looloo tax muy moytu mais man lijjantiwuma ko. foo jëm nii ko. non su nanguwul a man ma continuer samay entraînement xaaraat ba saison bi ubbi man yàkkantiwuma ma moo topp sama ginnaaw ñu teg ma ci condition yi baax yooyu lépp lu ma soxla ñu jox ma ko dootuma saax saaxee sama carrière non waaw combat bi li am na loo ma ñamaloon ñoom ñaar instant bi nan nga gisee seen état physique. non ñoom ñaar ñëpp liggéey nañ kenn ku ci liggéey nga lu la man a may ndam na nag yàlla moo ko yor mais ñoom ñëpp wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk liggéey nga loo xamante ni moom nga yaakaar moo lay may ndam. mais gis nañ tey ñoom ñaar ci côté bëre dafa am loo ma waxoon. Mhm. ñu gis ni vidéo yi ba tey gars yi dañ koy dagg. ci cadre bëre seen état Reug Reug ne ko di combat ma daan la di jël yu jël yu bokkul ñii moo gën a suy bëre mais ñoom ñaar comme ci cadre ñoom ñaar seen bëre non ñoom ñaar dese nañoo bokk lu ñuy bëre bokkuñu lu ñuy bëre ndax kii day jàpp doog a bëre te kii dafa gaaw xam nga li may expliquer moo tax combat boobu kenn ku ci nekk mën ngaa daan sa morom am na loo xam ne nag waxu mbër la ay dix combat mën naa laa daan loolu waxu mbër rek xam nga ak luy jaay combat mais xam na ne am na combat Sa xam na ne am na combat mais ñoom ñaar ku ci sàggane sa combat rek mën ngaa am lu la naqari. non ñoom ñaar defet baaxul ci kenn mais nag mënta ñàkk defet baaxul ci kenn mais mënta ñàkk xam nga faaw kenn daanu bu ma si niilul moom. yee faaw kenn daanu parce que ñoom ñaar fi mu toll la waaw. non mën naa gaaw mën naa yeex parce que ñoom ñaar ñëpp dañuy naxante fi mu toll nii saa daa am lu ko arrangé rek am lu ko arrangé. léegi nag saa day fexe xañ rëg li ko arrangé def li mu arrangé rëg tamit fexe xañ saa li mu arrangé appliqué moom tamit li ko arrangé. ci saa moom moo ëpp lu muy attaqué rëg-rëg. oui mais bu dee ci cadre bëre kan moo ëpp avantage. non mooy li ma la wax rek ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk am nga avantage saa dafa gaaw te ci biir gaawaayam mën na cee exploité loolu noonu bëreeg rëg-rëg daan ko mais rek avantage mooy tey mu yor saa ba jàpp ko bëreeg moom pièce par pièce. te bu ko saa xañee loolu nag bëre bi yomb ci moom. poids kan moom bi ci bon daal mooy bi nga toog ba am ko mais bi nga liggéey ba téye ko mënu laa sonal te ñoom ni ma leen kenn ku ci nekk li nga yor yaa ko moom. waaw. mën naa jeexee ci xeex dóor naa. mën naa jeexee ci xeex par erreur mais yaakaaruma ne xeex bi sax dina ci bari noonu parce que duñ ay mbëri xeexkat ñoom ñëpp bëre leen gën a favoriser am na loo waxoon ci combat Balla Gaye Boy Niang ma ko mooy loolu Balla champion la wul def na li mu war a def mais keroog Boy Niang tamit liggéey na lu daan Balla Gaye moo bi mu ñëwee mu appliqué ko sunu borom may ko ci ndam quoi. dama ñëwaat Thiès amul problème incha allah yow ñëw par amul benn problème.